mbokk Samagal moko ko internet yi ñi ngi ci première édition Fila fi ci Esplanade stade Amitié tay nak ñi ngi ñëw ci benn bergerie xamna ni sa way momay wax bi ba bergerie kilifa gi jarna la. jarna len wa Samagal TV. Ah. di len nuyu di len dalal ak jàmm. Mm-hmm. di len tourna na Cissé bergerie Baraka. Baraka waaw euh bergerie Baraka fu mu nekk. parcelle unité 16. Mm-hmm. waaw la bergerie bi nek juste derrière banque euh, BICIS bi. ok voilà bergerie Baraka kañ la nek ci élevage bi. waaw bergerie Baraka depuis 2015 ñu ngi si élevage bi. waaw 2015. Euh, la ñu ganale la ñu gan bientôt 6 ans la ñu ganale élevage. waaw ça veut dire que da ngeen jékki-jékki rek am envie dugg ci laalum wala da ngeen nekk ci yeneen euh, ñaaru élevage. waaw dañu passion la rek <laughs> daf dañ si yaru aussi. waaw donc nag ñu dem ba si biir euh, investir si dugg si. Mm-hmm. waaw ganale si le monde Ladoum. waaw. chaîne fan ngeen commencé pour pour ñu xam. Wa bon sans yi ñu commencé nag bari na parce que suñu première recrue suñu première recrue moom daanaka euh, du ben du ñaar. Mm-hmm. ay 2 trois quatre femelles lañ commencé. Mm-hmm. des sans différentes aussi. Mm-hmm. donc euh, sans Biram Njéemé Aïcha. xam nga sangu bi. Euh, et puis un un petit-fils de de de Al Gore bu ñuy wax Johnny. voilà donc kooku moo lancé suñu suñu suñu suñu suñu élevage. voilà. boobaak léegi six ans. naka bergerie Baraka ci lan la nekk. yéen a ngi ci euh, ci ci liguey out ay ay produits wala toll ngeen ci jaay nak nek ci ci éleveur yi fa fan ngeen toll.

je pense que ñun ay éleveurs yu mag lañ. waaw ah, dëgg la loolu moom loolu moom batoñee boo ko waxee rek élevage élevage day daal di tëju moom. batoñee moom boo ko waxee rek <laughs> affaire di daal mais tey nga ñëw fii laa ma gis fii benn jeune mâle gis fi ñetti famille yu rafet. xam naa ak soo ñu leen ci bokk si jeune mâle bii taxaw nii moom kan. waaw kii doom la si batoñee. mi ngi toll si onze mois ñu koy wax résistance. yaayam di doomu Saalam Saalum Saalum ak benn doomu màggal bu mbuur. waaw voilà. donc résistance euh, onze mois doomu batuñee euh, yaay ji di doomu saalum ak benn sëtu màggal bu mbuur waaw batuñee daanoom dama ko yéex a yëg naka la demee daanu batuñee waaw bâtonnier daanu dafa xawoon na tawat nag. waaw tawat bi xaw a duré te kilifa la. dëgg la duñ ko bàyyi mu sonn. waaw ñu tëral ko ah, noppal ngeen ko ko tëral. macha allah loolu moom am na solo quoi. voilà tëral ko noppal ñu ko mu nekk xar boo xam ne xar. kilifa la si biir xar yi. waaw daan si la toll. mi ngi toll si trois ans. trois ans waaw mi ngi toll si ñetti at. mi ngi si ñetti at waaw. ok euh, comme résistance moo ngi ñëw war a wutu papaam. war a liggéey ci élevage. mais seen base de femelle noonu la ko liggéey waaw dañu jël nag seen i yaay euh, nekk si ay doomu jooni seen i maam nekk de de d'ancienne euh, championne waaw ku xam bergerie Baraka xam ko si qualité waaw wax dëgg fa yàlla suñu recrutement yi comme ni ma la ko waxee au début rek dañu laal sang yi yi fi jot a jaar yëpp ñu xool li si gën ñu dugal ko boole kook jooni ñooñu nag tey la ñu booleek ay bâtonnier tey ñu meññ ñi nga fi seen nii waaw macha allah tay ñu dem benen box ba gis na fa benen jeune man gis fa ande mo and ak yeneen defana ay tëng ak ak ñoom ñaanal ko kala waaw kele mom moy pap Ale dom la si bâtonnier aussi yaayam di domu Joni aussi euh, yaayam aussi di seut ci ci ci magistrat waaw dom la ci ci ci ci bâtonnier mi ngi tollu ci 12 mois euh, euh actuellement mardi dernier la am euh, donc tay la am une semaine 12 mois une semaine bâtonnier demul quoi mën nañ ba tax ñee ne papa non demul bàyyi na fi loo xam ni mën na ko wutu daal waaw loolu moom suñu xel dal na si boo xoolee résistance mhm. xool Pape Alé mhm. ak ñi nekk femelle lu ñu fa ay doomam. jàpp nañ na demul moom. waaw wax dëgg fa yàlla. ok mm. Batoñe ba muy ba muy ba muy dund moom mën na def concours lan na mu fa gagné wala yéen a ko téye woon rek. waaw c' le mâle le plus haut de de l' élevage. Ah euh, du Ladoum. hauteur euh, au garrot cent vingt à deux ans et demi. waaw kooku mooy Batoñe. waaw record yooyu teg na ko fi. macha allah waaw kon daal Béchiri Baraka mi ngi ci élevage bi à à six ans def na fi loo xam ni mën na ni péage a jaar quoi xam nga gars yi dañu naan léeg-léeg da jaar péage quoi <laughs> c'est vrai kon tey euh, fan ngeen tool euh, filaa bi noo ko gisee ak lan mooy seen fan ngeen dem ci euh, am ngeen loo dugal tey ci ko yi. waaw concours yi dinañ dugal grande femelle. doomu batuñu incha allah. waaw mi ngi nii moom mooy Malayka. Malayka moo ànd ak doom ji effectivement. waaw comme ñu def nuñ ko defee woon ak baayam rek. ñu bëgg ko defee ak moom. defaat ko ak moom. incha allah waaw Malayka. Ah? waaw kon Malayka nañ ko xaar. mais Tamagal TV xaar leen Malayka ci concours fila bi. xam naa ne kii moom bu duggee <laughs> macha allah dina am dara. <laughs> mais mais doomu bi mu àndal doomu kal wa mom dom la ci malaika papam di adiya dañ ko fixé wat ci ci batouñi parce que ñun ñom batouñi duñ ci doyal alors mi ngi am ci 1 mois net la tol waaw boy après nga jël mo modé bi 1 mois inshallah <laughs> kon euh xaway est-ce que duñ ko leb rek modé bi bayiko rek ñu bayiko waaw ba benen bu jimi jamoro ok kon euh lan moy lan moy message bi ak no gisee fila waaw fila bi di ci am contentement wax deug fa yalla waaw c'est une première euh, dans l'histoire nak ñu tek fi mise mu melni waaw donc euh, di ñaanal ñi ko organiser yàlla sàmm leen te dëgëral seen taxawaay. waaw di encourager nag euh, tous les participants. Mhm. ak euh, ñëpp ñoo xam ne tamit bëgg nañ ñëw nañ ñëw. Mhm. parce que voilà tëjul buntu bi kenn quoi donc euh, voilà loolu daan lay lay lay lay laay laay ñaax gars rek voilà waaw ah kon nag euh, bergerie Baraka moom dafa naa ne euh, ku bëgg laadum pur sang gi bëgg ay xar rafet moom war na fa ñëw doxantu fa seet si leen fan la tegtal bi ak numéro yi ku leen bëgg a jot def visite waaw numéro yi moom je pense bi binduñu ko si bâche yi mais mën nga ko jël 76 634 double vingt vingt vingt. waaw. ñu ngi ñu ngi ñu ngi dëkk parcelle unité 16 ginnaaw banque BICIS bi. waaw juste juste derrière banque BICIS bi a 40 mètres terrain football bi. incha allah waaw boo ñëwee foofu rek boo laajtee dinañ la woon bergerie bi boo taxaw sax di nga ko gis. 76 634. 20 20. rafet na waaw kontaan naa gaay. jaajëf waa sama ah. loolu ngay def. <laughs>